ngeen jógee mu ne ma monsieur monsieur monsieur le maire ma ne ko waaw mu ne ma vous ma ne ko waaw mu balaa ngay dessiner looy def ma ne ko brouillon mu ne ma la créature brouillon de de la femme est la créature parfaite de Dieu <laughs> donc kon war ngeen xam seen bopp fonk seen bopp les hommes sont des brouillons de la créature de Dieu tey nag dañoo jëm si lu am solo muy le référendum du 20 dafa am ku ma waxal mi ni le 20 dinañu yóbbu Macky Sall deux appui 2017 ñu def ko trois appui 2019 muy quatre appui mu abal ma ne ko loolu dafa sori. le 20 mars nañu yóbbu Macky Sall quatre appuis mu abal moo tax ma bëgg les jeunes qui sont là képp ko ci amul carte pour voter na nga cibler sa benn sœur wala sa sa yaay wala sa tànt mu yor carte nga convaincre ko pour mu voter le non ndax ci élection yi war nañoo wax lii Macky dañ ko war a xamal ni gor si wax ba gor si wax fii senegal lu ñu xam mooy mag bu waxee def waaye mag bu waxee rocceeku mag bu waxee kàcc mag boobu war nañ ko xamal boppam beneen bi ñu wax Macky Sall ne le 20 mars au conseil des collectivités locales bi nga bëgg a jël te budget bi nekk 15 milliards nga bëgg ko jox monsieur Ousmane Tanor Dieng ñun àndu ñu si monsieur le président les nouveaux droits yu nga ne da koy dugal ci constitution bi te àdduna boo àdduna bi boo ko waree les nouveaux droits mooy l'homosexualité góor jigéen soxlawuñ ko Sénégal loolu moom mooy discours bi nga xam ni moom la ñu war a wax wax ko képp ki nga xam ni day sikki sàkk ndax day wote non wala oui donc na ñëpp mobiliser wu sensibiliser population bi mu nekk une marée non au niveau à la date du 20 mars mais principalement au niveau de Thiès parce que dañoo am ki nga xam ni tey il fait la fierté du Sénégal muy le président Idrissa Seck tey Lanoo fii ngañaay gi daa war a yaat waruñu nangu benn bureau au niveau de Thiès ñu ni wii bi am na fa ndam dafa war a doon une marée du non donc te loolu sama sama collègue yi muy Talla Sylla muy Aliou Sow muy Pape Basirou muy Yankuba Diatara pare nañu pour lépp lu mu laaj pour que ñu jàllale information bi gis naa te au passage maa ngi remercier bu baax jigéen les jeunes fii de Pape sol nañu ba jekk mais du wax sama jeunes yi aussi que ni ko tiset yi pare na casquette yi pare na voilà di wax sama jigéen yi aussi que grand mbubb yi commandé nañ ko dinañ ko commandé pour solal leen <laughs> ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu jeunesse féminine bi fi taxaw yëpp di wax na sama sœur Diarra wax na mais damay tudd rek ci li nga xam ne loolu lañ jëm muy référendum bi. parce que 8 mars bi li tax tey cause bi li tax mu gën a neex ñu organiser ko mooy que préparer li nga xam ne mooy le mooy le 20 mooy le 20 mars. loolu moo tax gën a yokku tey ñu préparer li nga xam ne mooy 8 mars bi ñu préparer ko nag ak suñu ay allier préparer ko ak CREI yi ndax suñu sœur Maté ngi nii préparer ko ak. Euh, est ak nord ak ouest jeunesse féminine lu parti réew mi ak allié yëpp bi ñu ko préparé li waral allié yëpp ñëw ci mooy que juste pour ñu préparer li nga xam ne mooy le 20 mars le 20 mars boobu nag ñun ñu ngi ciy woo képp kuy jigéen pour nga dem voter ji non parce que le fait que ñuy ñuy ñuy gën a taxaw ci non bi mooy que xam nañu ni amatuñu président parce que ki nga xam ne tey dafa war a joxe bon exemple di ki nga xam ne mooy kilifa gi war a yar njaboot bi ñun ñëpp ñu war a sukkandiku ci moom pour mu yaral ñu sunuy njaboot kooku seen moom mooy wax muy deñ kon boo bëggee yar dina métti kon kilifa guy wax muy deñ respecté lam doon wax quatre ans muy dem ak li muy dem ak moom sans autant que mu wax lu leer te bi muy dem xam na ne naam ka du def cinq ans sept ans lay def mais lépp mu ngi ko ëmb quatre ans muy dem ak moom ñëw ba un jour boo koy wax day fekk nga waxtaan ak ñëpp. pour mën ko tënk mais yëpp askan wi ñàkk a respecté yi tax na mu def loo xam ne élection pour ñu préparer ko ci un mois kon loolu président boo xam ne respecté wul benn doomu aadama ci am na loo xam ne duñu ko nangu ndax ñun jigéen lañu suñu demee bay bokk ak borom ñaari tur yi suñu solee rob ñu sol rob bu ñu solee taybaas ñu sol taybaas kon ñun ñu dooleel li nga xam ne mooy le wii ñun noo bi la ñuy dooleel ci ñaan yàlla noo bi gañ damay wax ne damay wax non non non dama koy wax trois fois parce que non boobu pour le référendum mais pour législatif pour présidentiel ñett yooyu la ñuy enchaîner boole ko ak moom mu xajal ñu Sénégal parce que wu ñu tey ki war a yar ñëpp ki war a éduquer ñëpp di tey di yàq yàq bi muy yàq mooy que xale boo ci waxal léegi mun la ah tata mbaa doo ma def ko. formation xam ngeen ni fan yi ñu génn suñu maire Talla Sylla dafa nekkoon France. doon amoon tawat doon ko faj yàlla tey def li nga xam ni moo ñu gënal mooy mu dellu si ak jàmm te yàlla may na ko moo tax moom muy organiser cant le pour delloo suñu borom njukkal si lu ma ko defal donc gaydal fële si Bagdad la koy defee le 12 donc silma pour que aussi ñu nga xam ñu yëgal ko mbooloo mi xam ni Talla Sylla ngi ñëw te le 12 lay def cant bi nga xam ni tey ndamu Thiès la pour wan war rekk ni ñun Thiès yëpp nañu nekk benn takku dugg ci quartier yi dugg ci kër yi mobiliser suñuy suñuy yaay yi mobiliser suñuy rakk yi mobiliser suñuy jabar yi ñëpp dem voter non Non, non, non, non. Merci beaucoup.